tey nag dañu doon pour inaugurer teen bi nga xam ne moom lañ defaloon village bi di xatali teen bi moom yàgg na ndax tàmbali woon nañ ci koor ga mën naa ne un mois la liggéey bi def am ndox boobu ba léegi population yi ñu ciy jëriñu waaye ñun suñu bopp ñoo amoon ay dog-dog yu bëri pour mën a ñëw fii pour def inauguration ba tey ko yàlla dogal loolu nag dañ ciy jégalu suñu suñu partenaire suñu donatrice bi nga xam ne moom moo financé teen bi nga xam ne moom moo génne ci li ko yàlla dénk mu defal leen bi pour waa dëkk bi mën koo jëriñoo dañuy sant son subhaanahu bu baax a baax a baax a baax ci li ñu yàlla yombal dëkk bi maanaam teen bi am ndox ndox bi mën a nekk loo xam ne nit ñi niñ ci mën a juriñoo ndax def naa ne loolu rek moom moo nekkoon jublaay bi taxoon moom mu def ci xaalisam. di leen masow coono bi ndax lu mel nii lu jafe am la ba ko doomu aadama amee ci dooleem yëkkati ko ci dooleem yéene leen ko jox leen ko ah delloo ko njukkal rek moo war. di ko jaajëfal di leen jaajëfal yéen tamit yéen ñi nga xam ni ne yéenay ndawam mu leen di yónni ngeen di dem di ko liggéeyal ci nu mu ko bëggee yàlla na leen yàlla dëgëral dëgëral ko moom it ci li mu liggéey nii nga xamante ne si diggante ngasum teen jigéen ñi tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak chef di village bi di leen jaajëfal di jaajëfal ndaw si nga xamant si moo joxe lii waa dëkk bi bëggoon nañu ndox lool a ah, yàlla def na ñëw ngeen am nañ ci benn teen boo xamante ni si ñu ngi ci jàppandi boobu léegi nag teen bi du jeex jigéen ñi daal kontaan nañu ñun góor ñi tamit kontaan nañu ndax su fekkente ni jëluñu ay bidon yi di rooti feneen di indi di teg suñuy saret wax dëgg yàlla ku la ko indil kooku jaajëf rek nga ko war a wax. ñu leen di remercier di leen di masawu coono ci seen ñëw bi ngeen fi ñëw tey. di leen di jaajëfal bu baax a baax baax ak sunu moroom jigéen mi nga xamante ni moo financé teen bi ba mu ñëw fii ndaxte ñun ay jigéen la lañu te sonnoon nañ ci root bu baax a baax a baax ndax dañ daan jóg ay 5 ay quatre heures du matin ba ay 5 heures ba 6 heures ba 7 heures si suba te mënuñu fexe ba am ndox bu ñu ñëwee si teen teen bi doy xat lool lool lool jigéen bu ne benn paan ngay am walla ñaari paan nga ne si ba ay 7 ba ay 8 doo am ndox da ngay mujj sa liggéey de tàdd te doo am ndox kon jigéen ñoo leen di remercier bu baax a baax jigéen ji nga xamante ni moo financé teen bi ba mu ñëw fii ñoo ngi koy sant di ko ñaanal yal na yàlla yokk taxawaayam mu yokk mën-mënam mu may ko li mu lépp loo xamante ni mu ngi koy ñaan yàlla mu ngi koy soxla ci àddina yal nag ko yàlla defal ndoxum teen bi neex na macha allah. ndoxum teen bi moom neex na teen yi fi nekk yëpp dëkk bi ba dëkk bi daj teen bi moo fi jël première teen bi nekk lu fi ñun ñi nekk ci koñ bi yëpp kese teen bi dëkk bi bi yëpp la fi nekkal ñun ñëpp si root ndax teen bi neex na macha allah ndox mi du jeex ndox mi du jeex ndox mi neex na dañuy root bu ni ñuy buggee boo jógee léegi léegi root léegi léegi am ndox léegi léegi waaw jaa ngeen jëf. boo sax ñu bañ ko ak teen géej lañ koy wax. nak dekk bi yëpp ci teen bi lañ jëm ñëpp di root ci teen bi du jeex du jeex du xaaj yow rek yaay sonn nga bàyyi kon nag ñoo ngi ñaanal ki jiite teen bi mu indi ko fii ñoo ngi koy ñaanal yal na guddi fan yéen ñiy wër di ñëw fii yal na ngeen gudd fan yal na leen yàlla may li ngeen bëgg wasalaam. Euh, Cheikh sœurs donatrices, Alhamdulillah Rabbil Alamin, euh, nous sommes actuellement au village de Khantali, Inch'Allah, pour procéder à l'inauguration officielle de ce puits qui a duré un peu longtemps quand même, dû à euh, des, imprévus par rapport à l'association qui avait du mal quand même à, s'organiser par rapport au voyage qu'on avait pour venir sur la localité. Même si ce puits-là était terminé depuis presque pendant le ramadan, c'est aujourd'hui qu'Allah a pu nous permettre de venir sur toi, Inch'Allah, pour faire l'inauguration officielle. Aujourd'hui, euh, surtout les femmes, elles ont de l'eau de à côté de leur maison qui vont pouvoir, Inch'Allah, utiliser cette eau-là pour leurs besoins quotidiens, que ce soit se laver, Inch'Allah, faire les ablutions, faire les ibadats et Inch'Allah, faire la cuisine. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce don-là qui a fait pour vous, euh, une cause de votre euh, accès dans le paradis Firdaus. Qu'Allah vous bénisse, bénisse votre famille, qu'Allah vous protège d'ici-bas et dans l'au-delà. Nous espérons, Inch'Allah, que nous pourrons ensemble continuer d'autres collaborations, Inch'Allah, pour venir en aide les populations démunies. Euh, nous vous excusons beaucoup pour ce retard-là. Nous vous disons la khayr wa barakallahu fikum.